ñaanal sama xarit bii ma ziyaar léegi di sëñ siidi mu yàgg fi loolu te ci moom lay jëkkee sëriñ siidi dafa nekk jàmbaar joo xam ni lépp léppam tànneef la damay wax ni donn sëñ Abdou Lahat yombul waaye ba mu toogee jëfe na jukka sëñ Abdou dox na doxinu sëñ Abdou kon moom ñu ngi koy ñaanal mu jàgg fi lool te te fu mu nekk ngërëmal sëñ Abdou di ko fekk ak ngërëmal Cheikh Mat Bamba ñoom loolu rekk a leen ñor wutiwuñu lu dul loolu borom bés bi nag maa ngi ko doon wax rekk ci benn interview ni sëñ Abdou nit ku complet la ñi nga xam dañoo wax ni nit mortul dañoo wax ni Amady li mu wax ëpp na déedéet ab laat wàll bi nekk lu nu war wax rekk ci àddina bi te mu war jëriñ nit te nit ki mën ko jëfe daje seeg ngërëmal sunu borom daje seeg ngërëmal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daje seeg ngërëmal sëñ Tuubaa sëñ ablaat wax naka barke démb rek lay déglu discours bi mu def 1981 di woote nit ñi ñu dem ci tool yi su discours boobu tey la tey la wër ëpp njariñ ci senegaal ndax discours boobu day wax nit ñi ñu dem liggéeyi tool yi su ñépp demoon ci tool yi senegaal kenn dootul jëggaani looy lekk te senegaal fi ñu toll coono bi gën a metti mooy li noo lekk li ci ëpp dañ koy jëggaani bitim réew na ceeb bi rawatina leneen ak leneen mbay mbay rekk moom man faj soxla Sénégal te sëñ Abdoulaye woote na ka woote na aussi di xam ne ñi nga xam dañu jóge ci àll bi bàyyi seen kër yi dem ndakaaru yor tuuti marchandise du tol tolaan du la jëriñ dara daf leen wax toog leen sa tool yi discours boobu moom war nañ ko tegaat di ko tegaat fu nu toll suñ ko defee rek euh, dana faj soxla Sénégal yu bari sëñ Abdoulaye kenn amul fayam ku ko dégg ku nekk gën bëgg sëñ tubaa ku ko dégg ku nekk gën bëgg gën gëm sëñ tubaa ku ko dégg ku nekk gën delloos gën jël sa bopp jox ko sëñ tubaa yàlla nanu ko yàlla fayal sëñ Sidi taxawaayam rafet na lool moom ak njabootu sëñ Abdoulaye yëpp ñu ngi leen di ziyaar bu baax man na kër gi bin fee ñëw tuuti tànk lanu yàlla def ñu taxawal association des étudiants murit sëñ Abdoulahat jox ñu fit woo xam ni université daayira bi fa njëkk am daayira sëñ Touba la te loolu sëñ moo moonu may fit ba gisatuñu koo xam ni ñun mën na fees suñu bët ku dul sëñ Touba na nit ñi di tiitaroo sa biir université di ay Karl Marx di di ay Engels ñun suñu ño suñu bët yi dañ si tuuti woon ndax gisatuñu ku dul sëñ Touba moo tax nu samp daayira étudiant murit te ab laat kenn amul fayam yàlla noonu ko yàlla fayal jërëjëf